doyen Assane Masson Diop bokk ci magum parti socialiste yi ñu gën leen xam ci sage mu bokk itam ci ña gàddu woon pancarte ca kanamu De ngir ngir euh, sàkku indépendance bu Sénégal euh, Mame Boye ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte lool dalal la ci Demb ak Tay encore une fois bisimilah. bisimilah ñu leen di dalal jàmm euh, na leen yàlla fanqal musiba ak balaa. Mm. te li ngeen sumb nii yal na ci yàlla def barke. amiin alhamdulilah. Mhm. jërëjëf Diop euh, ni ma ko waxee nag tey la ñuy waxtaanee atum 1967 la xewoon juróom-ñaari at ginnaaw bi Sénégal amee indépendance tey mhm. jamono tàmbali ko indiwaat ndax keroog bésub tabaski gis nañu ca Mali euh, président Assimi Goïta ñu bëggoon ko faat euh, ca mhm. Haïti lu ko jiitu faat nañu njiitu réew ma Jovenel Moïse Madagascar itam ñaari fan la ñu teg ci tabaski gi daanaka wala benn ñu bëgg a faat président ba André Rajoelina Touba euh, loola nag tax ñu bugg a waxtaanee waat la xewoon démb bala ñuy ñëw ci jàngat tey ci démb ak tey mu ba ñu bëggee faat président euh, Senghor Moustapha Lo euh, daal di woon kon def joojale jëf ndax mën nga ñu dikkaatal ci xew-xew boobu fàttali ni yow itam ku jege woon président Senghor nga. waaw yaakaar naa ne baax na bu jamono nekkee loo xam ni day day tax ñu fàttaliku démb ak bërki démb lu xewoon lu am solo la mais euh, li ñu ciy jëkk mën a wax wax nga ko léegi fàttal ko li xewoon loolu nga bëgg ñu waxtaane ci tey 1967 la amoon donc comme ni ko waxee yàlla def mu tombé woon bésul tabaski ndax te nga dafa daan def te loolu it def ko doon na ci tubaab bi ñu ci nekkee bésul tabaski wala korité feet yu mel noonu dafa daan ñëw fekk si ànd ci ak julli ci ci seen euh, waxtaan hmm. ci seen euh, jullikaay bi ñoom ñëpp bu jëkkoon gouverneur général moo daan ñëw fekk yooyu Senghor ba mu bañ jëlee comment euh, jamono yi moom tam daawul manqué xew-xew yu mel noonu hmm. donc mille neuf cent soixante sept comme ni nga ko fàttalee hmm. ci la jamono mais xam nga boo nee 1967 sa xel day dem aussi ci 1968 moo ci tegu. Mm. at bi ci tegu. Mm-hmm. mu amoon aussi xew-xew bu am solo nga lu xewoon non seulement Sénégal mais euh, boo nee 68 da ngay daal di xalaat aussi bien France que parce que xalaat. Mm-hmm. France na suñu doomu bàjjen. Mm-hmm. toujours bu ñuy wax dara foog ñu xalaat leen mais 68. moo topp ñu te. tegu woon ci li nga xam ne moo xewoon 1967. 66 lu xewoon. ah les événements de mai 68. d' accord révolte des étudiants des ouvriers et cetera et cetera. d' accord mhm. benn at mhm. donc pour dellu si waat ci 67 comme ni nga ko waxee. Mhm. Euh, la woon si dina baax ñu fàttaliku ne jamono jooju depuis mille neuf cent soixante six nga teg ci soixante sept dafa amoon li ko tubaab yi tuddee un contexte jafe-jafe jafe-jafe yu jafe-jafe yu xewoon commencé woon di jafe-jafe donc euh, soixante six déjà ci mbirum politique parce que yooyu yëpp politique lay commencé wala ci lay ci lay bokk muy côté étudiant comme muy côté ouvrier syndicat et tout ça dafa amoon ay ak aussi mhm. parce que ci loolu mooy indi mille neuf cent soixante sept bi mhm. mu côté jullit côté religieux mhm. dafa amoon aussi ay jafe-jafe ay yëngu yëngu-yëngu donc euh, loolu mooy contexte bi nga xam ni moo jur li nga xam ni moo xewoon ci bésu tabaski jooju ba comme niñ ko fàttalee euh, ñu bi ñu jullee ba pare ñu Moustapha Lo taalibeew Tijaan ci jamono jooyu doon jéem a faat jéem a attaqué président Senghor bi ñu jullee ba pare fu ñu jullee keroog ca grande mosquée ah toujours grande mosquée la ba ñu ba grande mosquée xawee ba bañ ko defar tabaxee ba mu door. Mhm. julli yëpp foofu lañ ko defee. bu mhm. jëkkoon aussi du woon tuddul woon grande mosquée la tuddoon mais tabax bi melul woon comme ni mu mel après soixante huit. Mhm. parce que loolu euh, ci mais foofu lañ mos di julli. d'accord si julli yooyu. nu yëf ya demee. ah na mu demee nag sëriñ coor na ci def naa ne journaux yeeg euh, historiens yi dindi nañ ci lu bare bare waaye man sama mhm, mhm, mhm. man man sama ko parce que nekk mu fa woon julliwuma donc li nu ci dégg rek mooy euh, yëkkati na fetal bëgg koo faat waaye fetel ba euh, joxewu li bal léegi ginnaaw loolu yéen waa parti socialiste ban taxawaay ngeen am ñeel xew-xew boobu ah kooku comme politicien yëpp ak réew mi yëpp d'ailleurs ko rafetlu wuñu ko. Mm-hmm. Euh, ndax dañu considéré ne bés bi ñu jug ñu ko bëggoon a defee muy donc bésu tabaski. Mm-hmm. béréb bi du jullikaay du woon place lu mel noonu. Mm-hmm. donc euh, loolu kenn rafetlu wu ko woon dañ ko bi mu xewee. structure kuréelu parti socialiste yi comité yeeg coordination yi ñëpp dañ ko ñaawlu hmm. ba wane ko wax ko dox doxale ko pour wane ne ñaawlu nañ ko te ñu ngi ànd ak président Senghor di ñaawlu loolu yéen kenn yéenu ko yéenewu ko woon hmm. jurutoon tiitaange itam ci yéen ñi newoon ci nguur gi ndax wax nga ko contexte bi dafa xawoon a doy waar ci wàllu politique ak yeneen ak yeneen waaw waaw déedéet mooy li liñ ci war a liñ ci jàpp te dem hmm. fàtte ne laaj nga ma ne ndax fay nu mu demee ma wax la ne ma fekkewuma ko waaw waaw ma ne ndax jurul woon tiitaange nag ci yéen ñi fare woon ci nguur gi ginnaaw xew-xew bi ah déet ci tiitaange kay dina ci am ndax hmm. bu ñu tolloo ci jamono ji ni mu meloon noonu hmm. lu mel noonu am ci te ñu yaakaaroon ne dafa am aussi ñeneen ñu nekk ci ginnaaw ànd ci ak ki nga xam ni moo doon Moustapha Lo door a dem. Mm. ak fa mu bokk dañuy daal di indi tiitaange parce que dañuy foog ni am na leneen ak leneen. d'ailleurs mm. bi nga doon xam ni takk der yi doon def enquête beeg ñi ko yore woon yaakaar naa ne ci loolu njëkk xalaat. Mm. du du yëfu nekk. kenn nit rek. Mm. du mu sutaaloo jubbu boppam. Mm. moo doon jéem a def lu mel noonu. dañu mm. yaakaaroon ne dafa am ñeneen ñu ci ànd ak moom wala ñeneen ñu nga xam ne ñoom ñoo taxaw ñoo taxaw doon jéem a def lu mel noonu. ñu xalaat bi gisee xam fi mu bokk ci lu mel noonu dañuy mu buñ ko xalaatee ci lu jëm ci affaire politique. te ñuy yaakaar ne effectivement du woon Moustapha Lo rek dafa amoon ñu mu àndal. booba moom ku ma àndaloon ci wàllu politique. ah ci mu àndaloon waaw mën nañ ko rëdd ba ñu créé partem. d'accord moom ci ci kuréel googu la d'abord ci famille hmm. boobu la bokk. d'accord hmm. boobu. mais ay soupçon kese la woon waaw. Hmm? ay. ma ne ay soupçon kese la woon lu nu foogoon rek la. ah waaw moom la ñu foogoon nag. Mm. te ñu dafa amoon ñàkkul ñu doon def enquête bi. am na lu ko firndeel ba tax mm. ñu mën a xalaat ne loolu. Mm. mën na ko jur. waaw parce que parti politique la bokkoon boobu. nit mm-hmm. ki kooku àndul woon ak Senghor. d'accord uh-huh. am nañu wax itam ni Senghor xelam dajoon na Mamadou Dia ca yooye jamono. ah waaw xam nga yaa ngi ne 67. Mm-hmm. gëw ma ci loolu mënoon nañ ci mën nañ yaakaar foog. ne mm. mais bu leen fàttali ne génn na jóge nañu ci 62. 62 waaw. ba juróomi euh, at tegu na ci. waaw ba ba euh, Modou Dia ñu condamné ko ñu ko condamné yóbbu ko Kédougou. Mm-hmm. donc euh, ñu côté Mamadou Dia daal gëmuma ne tudd nañ ko ci lu bari. Mm-hmm. mais nag mën nañ ko foog. parce que mm-hmm. c'est normal. waaw. alors réew mi it jamono jooja euh, naka la ñu dundee xew-xew bi euh, bëgg a faat ku toll ne président de la république te jàkkaarloog moom ba bëggoon a soqi ay bal ki ñu yaakaaroon ne xëy na moo ëpp karaange ndax itam askan wi amuñu woon benn tiitaange boo xam ni ak njàkkare gu ñu fësaloon la. ah wax lii di boo xoolee li mhm. ñu xam ni. boo ko der moo am dans ci avenue yëpp hmm. kilifa gu mel noonu dafay am kaaraange bu ko dafay am na garde corps ak am na euh, service de sécurité ak yëpp yoo xam ni ñoo koy ñoo koy aar donc ci pour éviter justement yu mel noonu am di mën a am hmm. donc euh, effectivement euh, ñi ko jigéen ñoo nag ko bokk moom parteeg ak réew mi yëpp ñëpp ci am tiitaange parce que lu mel noonu du lu ñuy gis souvent hmm. donc effectivement ni ñi kay euh, Sénégal yëpp ci tiitoon ndax ndax mënoon a jur effectivement ni ñëpp tiitoon nañ alors ginnaaw loola atte nañu ko daal di koy condamné à mort moom Moustapha Lo euh, lu ko jiitu bala ñuy ñëw ci faat gi am na ñu ni ay nit ñu ci tegoon loxo ndax mën nga ñëwaat ci ñan lañu ñu jàppoon euh, xëy na ci ay personnalité yu ñu jàpp yaakaaroon ne yëf yi taq nañu ci. Ah, déet ma toll rek defe naa ne sama euh, fàttaliku dafa may xaw a ndax nag yàgg na. te it dootuma xaleel bu am. comme que de de kii ba mën a fàttaliku ñëpp li nga xam ne mënoon tudd nañ leen ci su fekkoon ne sax dafa fekkoon ma am si journaux. Mhm. a xam li xewoon nag. dëgg la Diop <laughs> nangul nañ la loolu. <laughs> ñu lay ñaanal loolu nga gën fee yàgg. yàlla baax na waaw waaye nag moo tax xam nga. dina xaw a jafe. Mhm. surtout. dëgg la waaye daal ñu <laughs> jàpp ne am na ñu ñu njortoon ne yëf yi takk nañu ci ba ba teg leen loxo. alors président Senghor neenu bala ñuy faat Moustapha Lo mi nga xam ne condamné woon nañ ko à mort ñu bari ñaan nañu ko njekk waaye dafa bañ. Euh, loola est-ce que yéen waxoon ngeen ci waaw. ni nga ko ko déggee noonu lañ ko déggee. Hmm. waaye nag pour xam ndax euh, kuréel bi en tant que tel. comme ni ma ko waxee muy du comité jusqu'au bureau politique mm-hmm. effectivement suñu position c'est clair on est contre des événements des façons de faire de cette manière kooku moom c'est évident maintenant nag ñàkkul ak ngoor ñi mu amaloon a awa ak réew aussi kilifa yi ak ko nga xam ni mooy euh, Moustapha Lo fa mu bokk ak ñamu àndaloon ñàkkul ñu am ñu dem seeti Senghor pour ñaan ko nekk mm. encore comme <laughs> loo fekkewul mm-hmm. tey naqadee nga nekkali ko mm-hmm. waaye daal yéen waa parti socialiste d'accordu leen woon ci ñu baal Moustapha Lo loolu doonoon seen position def affaire ñu baal ko bañ ko bañ liñ ci def moo di wax na ñun ci defin mu mel noonu mm. il appartient rek ki nga xam ni mooy ki nekk fii mais dayu mbind gi moom mooy seet ndax war na mën a baale wala mënul baale. Mm. yéen yéen yeggu leen woon foofa. maanaam li wér moo di suñu bëgg-bëgg suñu xalaat moo di jàmm sax ci réew mi. Mm. lu mel noonu nag particulier mi moo di jéem boom kilifa réew mi. kooku wax nañ ko waxaat ko moo ne ne ñun d'accord ci lu mel noonu. Mm-hmm. dana nag ñàkkul ci ni Sénégal bindee moo mel noonu yooyu bu amee du ñàkk ñoo xam ni surtout bu dul demee ba mu desul lu dul condamné à mort donc du ñàkk ñoo xam ni dinañu jóg ci fànn ñu nekk. ak fa ñu bokk yëpp mhm. pour mën a ñaan ñekk mhm. pour que loolu bañ a am ci fànn boobu ci noonu mhm. le 15 juin 1967 la ko exécuté euh, faat ko euh, ci euh, boori corniche bu Ndakaaru ñu ne ci euh, champ de tir bi nekkoon foofu alors euh, moom Moustapha Lo euh, ginnaaw bi ñu ko faatee nee nañu président Senghor euh, amoon xëy na lu mel ni rëccu wala boog yu ni mel ci ñeel faat gi nga xam ne faat nañu ko Moustapha Lo ndax loolu yéen amoon ngeen ci xëy na lu ngeen ci xam wala lu ngeen ci gis ci président Senghor mi ngeen doon nekkal yooya jamono. xam nga comme ni mu la ko junjee ci bi. am na yenn yoo xam ne ba mu comment ba mu 67 ba ba at yi ci tegu. 2021. ñi nga ñi nga xam ni ñooy seen cër moo di gëstu. dara yi moo di les historiens. Mm-hmm. bind nañ ci. wax nañ ci mm-hmm. te loolu mooy seen cër historien mm-hmm. mooy di fàttaliku wala joxe ay firnde ci lu xew événement bu xew fàttaliku woo président Senghor jamono yooya lu mu ca waxoon wala lu mu ca defoon wala lu mu ca amoon ni ni taxawaay. fi ma toll nag. fàttaliku ko. <laughs> sama fàttaliku soreetul. Mhm. <laughs> ndax nag. mag mag dikk na boo boo boo laax boo laaxee juróom-ñett fukki mhm. <laughs> day na yi nga. dëgg la nga nga mën a ci ci ci yooyee xew-xew. waaye euh, jàpp nga ni xëy na yokkoon nañu kaarange wala am na coppite wi Senghor indi woon jëm ci kaaraangeem. ah waaw ko koy boo génne ci yu mel noonu. Mm. yokk kaaraange wàññiwul woon ay génnam itam. non yakaar naa ne xam nga nag Senghor d'abord ku gëm yàlla la waxuma mm. ne euh, sëriñ mais nit ko organisé la woon te yaakaar na ne am na lu bari loo xam ni xam na ko ràññee ne ko mm-hmm. mais du ko taxa tiit euh, am tiitange mosuma ko gis wala dégg ci lu jëm ci tiit mm. Senghor daaw nekk nit ko xam ni danañ ko gaaw a tiit xam nga moom moom moom daal ni mu organiser boppam moo di li mu daan wax kenn du ma xoxotal xam nga <laughs> loolu façon wax la daanaka waxee noonu man kenn du ma xoxotal mhm. bu événement yi parce que tàng boobu nag syndicat yeeg étudiant yeeg mais comme ni mu ko daan waxee man kenn du ma xoxatal mm-hmm. du buggee. kon daal lu ko jaxase yombul woon moom Senghor. ah, ah de ma fekkee. Mm. ah puisque eh, ah, pour yëngal ko daal ci loo xam ni dina ko tiital ba lay mel noonu. Mm. ah parce que moo ci lu bari de. Mm-hmm. moo d'accord alors euh, yéen euh, waa parti socialiste itam yan matukaay ngeen jëloon ci seen wàllu bopp ndax ku bëgg a faat président moom ñay ànd ak moom itam euh, du ñàkk xëy na danañu am tiitaange dëggal nga ko sànq est-ce que yéen am na ay matukaay yu ngeen jëloon ci seen wàll bopp yaakaar ne xëy na yéen it mën ngeen a doon ay cible ma fàttali la leen ne temps union progressiste sénégalaise moo amoon la woon ah, mhm. après lañu transformé parti bi au niveau de parti social donc pour dire simplement que comme ni ma la ko waxee sax moom muy ñi xam ne ñoo yore woon donc l' état d' administration ak ñun ci dañu bopp parti politique effectivement bu ñu génnee ci événement yu mel noonu foog ñu jël suñuy disposition effectivement on s'est organisé pour être encore qu'allais dire plus organisé pour que yooyu amoon ñu ciy bàyyi xel. Mm-hmm. ba jël des mm-hmm. au niveau des des comités dans les quartiers. Mm-hmm. au niveau des coordinations euh, yooyu yëpp effectivement kenn du génn ci yu mel noonu te doo doo doo. xel sa non non effectivement le parti UPS a pris ses dispositions. alors euh, tey euh, nga fekkee jamono fekke démb fekke tey macha allah lu ni mel xew keroog ca Mali euh, bésub tabaski talaata ñaar fukki fan weeru juillet Assimi Goïta mi nga xam ne tey moo jiite moomale réew ñu buggoon ko faat loolu la maam noo ko jàngatee ak contexte bi Mali tollu waaw justement mbir mi mooy li nga wax mm. contexte bi contexte Mali fu mu mm. ak li xew Mali Burkina Faso fàttali yaa ngi fàttali fàttali léegi aussi li xew Madagascar ak yëpp c'est tout à fait normal que événement yu mel noonu war mën a nekk parce que boo xoolee ni contexte foofu yëpp mbiru ji li ñu tuddee ñiy jiyaat loolu nécessairement dafay entraîner des situations yu comme ñi nga xam ni moo xewoon ci Mali ci fan mm-hmm. mu mën a nekk parce que contexte bien ak ah, situation générale dëkk bi mhm. moo moo koy indi mhm. non non loolu loolu te yaakaar naa ne surtout que ay lañu ñi nga xam ni ñoo yore Mali fii jamono ji ñu toll bàyyi ci xal certainement ñu ngi jéem pour que ñu mel noonu bañ a antu wala am mhm. d'autre part jël les dispositions nécessaires pour que réew mu dellu soit ci jàmm ba nit ñi nekk ci jàmm mm-hmm. waaye lu ni mel euh, bu fekkee mës na am ci réew mu mel ni Sénégal jigéemali lool euh, bésub tabaski ndax euh, yaakaar nga ni bàyyi nañu xel ci démb ndax mbir mu xasee am war nañ ñëw am lu nu ca jàngee ni leçon tey bu doon jàpp nañu leçon wu li xewoon Sénégal ak yeneen yi xewoon ci réew bi Afrique yi mënuñu dellusiwaat ci kaa yëpp ndax li xew tey dina xew ndax Assimi Goïta keroog xaw tuut ka ko bëggoon a faat yegg ci moom daanaka yegg na ci moom sax xëy na yàllaa ko muccal ak ak ak la uh, yëngoom waaw mais yaakaar naa ne euh, fii ñu toll lu mel ku ko wax ku ko waxul yëpp yëpp bi loolu amee ak ni mu jigéeñee Sénégal bàyyi nañ ci xel te man duma militaire fekk fekk ma nekk ma ci militaire mais wóor na ma ne ba loolu amee organes yi nga xam ni noonu la armée sénégalaise état Sénégal organisé dafa gën a renforcer gën a dëgëral ñi nga xam ni mooy kara karange bi ñuy war a yokk donc euh, justement yu mel noonu bañ a am na yaakaar naa ne euh, ñi nga xam ne ñoo yore karange réew mi yëpp fànn boo ko mën xalaate yaakaar naa ne jël nañu seen disposition yokk nañu karange bi alors mag nga yàgg nga ci wàllu politique euh, tey ñu seetlu fitna euh, euh, fës lool ci politique bi ñàkk ci woon dem ndax président Senghor lanu ko bëggoon a faate politique mënu caa génn politique ak violence maam loolu ci mën a wax ndax dañoo mës di ànd waaye itam ndax kenn mënu leen a teqatle wala rek loo xam ni la xëy na nit ñee ci topp seen bakkan ak seeni xadar waaye lu mën a ñàkk la muy fitna gi ci politique. ah bu ñu xoolee li xew yépp depuis l'administration coloniale depuis kii yooyu politique ak fitna ak euh, li ñu boo fàttali ko xëy na boobu xale ya kalo bleu yi ak euh, kii yooyu ci jamono yooyu parti socialiste de l'époque ak euh, BDS ak nekk UPS ak même yeneen parti politique toujours politique def daan mës di ànd ak euh, jafe-jafe ak difficulté ak bo booba euh, ci boo xoolee li nga xam ni moo xawoon diggante kalo buley ak kalo beere veer yeeg yooyu mën nga xalaat ne ju ak violence ñoo mës di ànd te Sénégal rek nag te Afrique yëpp ci àddina si yëpp noonu la politique ak jafe-jafe ak ñu mel noonu ñoo mos di ànd yooyu moom ku yaakaar ne dina teel a génn ci àddina si mm. waxuma Sénégal rek man ci àddina si yaakaar ne sa gis-gis bi sa réewul mm. euh, gan wute nga gis nag ci ni ngeen doon defee politique yéen ak tey ni nu koy defee ah si bokkul yi parce que xam boo gisee parti politique ci jamono yi waxuma tey jii mais loolu ci la ñu lu ñu doon na la dañuy jéem di parti politique yi dañuy jéem a éduquer seen i militants am ay militants parce que mën nga nekk ci parti politique di militant je veux dire par là que client ngay doon dañ lay jariñoo boo xamante militant bi nag da nga koy former jàngal ko tàggat ko pour que mu mën a ëllëg ak si biir yore réew mi comme ni ñu ko bëggee donc euh, te it li ko firndeel moo di parti politique yëpp surtout parti socialiste maintenant dañu créer des écoles du parti pour tàggat ci seeni militants pour ñu xam ni ñu war a doxalee pour ëllëgee si biir bu ñu waree wala bu ñu bu ñu yoree réew mi ñu xam nax lañ ko war a mën a doxalee. Mm. donc euh, euh, violence formation politique école des partis loolu yëpp mook politique mës di ànd. mais mais tey est-ce que yëg nga ne école du parti ñi ngi def seen wàll ndax dangay gis euh, violence bi ak euh, xëy na clientélisme bi mooy gën a fës comme militant bi nga xam ni formé nañu ko déjà waxum idéologie waxatuñu ko da ngay gis itam militant bu taxaw pour mu wax programme bu leer sax day jafe lépp daal ci saaga ak waxante lu ñaaw rek li ñu koy tënk ndax yéen mag ñi bu ngeen di xool loolu it du ngeen am lu leen naqari tuuti. ah bu baax du tuuti kay def ni naqari bu baax a baax parce que li ma fàttali ne la ñun li ñu gënal moo di nit ñi nekk des militants et non pas des clients parce que militant bi dafay am lu ñu ko tàggatee am lu mu xara am lu mu bugg ak lu mu bañ client bi moom dañ koy jariñoo rek pour lu ñu soxla teeru beeg tàccu beeg ci ak li nga xam ne moom la ñuy wax fi violence yeeg yooyu. te looloo gën a bari tey. yooyu yooyu ba nga xam ne danga nga daan sax ñii di wax quel que soit bor bu ñu féete ah ñii wax est-ce que xam nañu li ñu nekk lu mu doon ak li tax ñu parti politique yi juddu. wala di dox ak li ñuy doxalee non li ñuy doxalee kay ci jamono ji ñun euh, dañuy jéem justement ànd ak xale yi pour ji tàggat wan leen yoon. fexe ba école parti bi di fonctionner mm. ni mu waree non non doon kay rafetlu wuñ ko mm. te ñu jéem fexe ñëpp aw ci li nga xam ne yaakaar nañ ne mm. moo war a nekk njariñu réew yaa ngi ba tey ci PS bokk ci mag ñi justement ban différence ngeen di jéem a indi ci parti socialiste par rapport ak yeneen parti yi ñeel toujours militant yi ak taxawaay wi ñu war a am. déet ñun duñu comparé ak ñeneen ñi li ñuy wut moo di ñun li ñu bëgg li ko bëggee ak dañ ko taxawee pour que suñu militant yépp mel noonu. ca PS. waaw ci PS. Mm. moo tax ma ne la ñun duñ da xam nga danga ne. ñeneen yi ak kii yi ak ñun man la deet bu ñuy waxtaan ñun. Mm. li ñu sorotal moo ñu li ñuy war a doxalee suñu parti. Mm-hmm. pour mu mën mingook li nga xam ne ci yaakaar ne noonu la militant au parti social ci war a nekk. Hmm. yéen tey ci ban ban ban yoon ngeen tegu euh, nan ngeen bëgg def militant wu PS yi ci jamono juñ toll tey ak ni politique demee. non non ñun ci ligne de conduite. ñun ay militant lañu bëgg ñëpp nekk ko dafa yombul nag. Hmm. parce que ñëpp yemuñu ñëpp amuñu même formation ñëpp amuñu même gis-gis ak même façon de faire mais suñu ambition lañ suñu bëgg moo di véritablement li am solo comme ni ko dindee tout à sànq nit ñi bu doon suñu sago ñépp dañuy yaru hmm. ñëpp dañuy bëggante ñëpp yéeneente jàmm loolu mooy baasu li nga xam ni li ñu tudde société ñëpp ñu ci bokk hmm. war a nekk ànd ci njëkk ak sutura li nga xam ni mooy nekk njariñu réew mi yëpp ñun loolu mooy suñu gis-gis ci la liggéey ci la ñuy waxtaan ci mel noonu. d'accord taxawaayu sages yi ngeen doon ci PS lan la tey. yaa <laughs> ko sage boo boo tuddee sage looy xalaat ci sage sage kay moo di doxal. organiser fexe ba ñëpp nekk ci njëkk ak ci njëkk ak sutura ñun mag ñu wone le bon exemple parce que waxuma ne kat parce que le terme sage hmm. buñ ko dee wax dañu naan kii day moom jaru na kii moom intérêt général réew hmm. loolu mooy sage waaye bu fekkee ne yow sa gis su bopp wala sa bëgg-bëgg bopp rek ci nga bugg a yem hmm. loolu ko moom day dootu li ñu tuddee sage nekk nga ko hmm. donc ci biir euh, loolu kuréel bi ñu amee moo di suñu cër moo di fexe ba ñëpp ànd ñëpp bëggante ñëpp juba jubul te it fexe doxal li nga xam ne mooy njariñu ñëpp njariñu réew mi mm-hmm. ñun noonu lañu gisee suñu cër moo tax d'ailleurs dañu jëkk tëral moo di parce que loolu c'est normal ci parti politique saa si warul nekk ñoo xam ni dañuy xëccoo dañuy xëccoo responsabilité quelconque mm-hmm. loolu lañu ñu comme li nga xam ni moo tax bokk bokkuñu ci parce que ci parti moom mel noonu. Hmm. ku nekk da nga a nekk secrétaire général wala président de comité wala mel noonu donc foog nga xëccoo ñun nag les sages ñu bokk ci benn xëccoo. Hmm. pour am responsabilité. Hmm. waaw waaw démb bi ñuy wax téléphone euh, bokkul ci waxtaanee waaye yaa ngi mën na mani ni la sage PS nga ni ma est-ce que tey ndaw ñi xam nañu euh, njëriñal sage euh, tey maam placeu mag ñi ci politique. lan la bu bu jéggee parti socialiste ndax gis nañu ay mag ñu bari ñoo xam ni xëy na ñu ngi woon ci làng gi démb euh, daan rafetal bu baax a baax waaye tey dafa mel ni ndaw ñi joxuñu leen cër bi ñu leen war a jox euh, loola ndax jàppoo ni mën naa doon euh, luy manqué ci politique bi tey ndax yëf yi mi ñaaw di gën ñaaw mag ñi ban wàll lañu ci war a am ma ne bu ko koy bu ci sori mm. di xam nga gis ni réew mi ni muy demee yaa ngi wax fii ñii bojjanteeg ñuy saagaag ñuy am nu ñuy doxale mhm. loolu véritablement daf ñuy nekk loo xam ne bu doon suñu sago du am mhm. ñëpp dañuy juboo ñépp dañuy nekk ñu yaru ñu jox cër mag ñi ba nga xam ni lii tax ñuy yëngatu moo di lay nekk njariñu réew mi yëpp mhm. sukkandiku nag ci tubaab yi li ñuy wax discipline ñun li ñuy ko mën a tuddee moo di nekk loo xam ne ñëpp dañuy juboo mën a doxal yépp ci njëkk ak hmm. ku nekk ñu jox la su cër xale bu ndaw bi comme màgget yi ñu tuddee les sages aujourd'hui te hmm. am ay euh, mandarga yoo xam ne war na nekk ci société bi moo di véritablement ku nekk jox cër surtout yaru loolu lu am solo parce que bu yaru mooy en ak discipline mhm. discipline mooy tax ñu mën a vivre en société mhm. Demb ak Tay ngeen di teewlu seen émission ñu dalal ci euh, doyen Assane Masson Diop bokk ci sage u parti socialiste yi alors maam ñu dellusiwaat ci li waral waxtaan wi muy tentative d'assassinat ñeel président Senghor euh, ci atum 1967 ak tey li xew ma Mali xew Madagascar euh, bi ngeen génnee ci 67 yéen ban jàngat ngeen ci def ak tey yi xew yan jàngat la ci war a def. loolu xam nga maa ngi lay bi ma lay bi wi yaa ngi koy fàttaliku boo. donc oh, tey jii ak di le temps écoulé mi ñu mën a wax ma ne boo xoolee soixante sept li ci tegu soixante huit la mm. am événement yu am solo yu ci ci am tey jii te it ma fàttali la ne booba temps UPS la woon mm-hmm. mu évolué ba ñu tuddee ko parti socialiste le socialisme même dafa am ñu mu àndal mm. lu mu laaj nit ñi ko bokk ba di réclamer wu être socialiste am nu ñuy seen gis-gis mm. ni ñuy doxalee ni ñuy ànd ak li ñu bëgg euh, boo xamoon ñoom ku nekk individuellement mais li nga xam ne moom la bugg bëgg mm. moom bëgg bu nekkee parti bi bu jëlee pouvoir bi ni mu war a doxalee ni ñu ko yaakaaree mm. donc loolu mooy li nga xam ni bu doon suñu sago tey gi ñi yore nguur gi comme ñi koy wut dinañu mën a doxal te sukkandiku ci loolu ma wax léegi ni fa lay nekk loo xam ni li ci gën a am solo mooy yaru hmm. ànd ci ñekk ak hmm. loolu mooy li nga xam ni mooy pour ñun lu valeur de base yi nga xam ni li nga intérêt général yu moo war a nekk comportement yi mooy li nga xam ni moom moo war a nekk comportement wu tey xew-xewu jamono yi ci sa xalaat lu ci war a jàngat ngir xëy na ëllëg euh, fan nga gis ay faay ay manquement ndax ci ñàkk waxtaan la ndax ci ñàkk leneen ak leneen ba tax xëy na muy jur situation yu ni mel. waaw man de li ma yaakaar moo di li ci tax mu jafe jamono yi. Mm. c'est que ñu jàngat euh, formation bi ñu amoon jaar-jaar yi jaar. ba yegg si fii ñu yegg si hmm. dafa xaw a manqué hmm. ndax nag buñ la tàggatee ci comme ni ma koy fàttali léeg-léeg ba ñuy door ñun tout tànk te ñu nekk éclaireur ak valeur yi nga xam ni moo àndoon ak ñu éclaireur def ay xale yu tuuti yu bokk ci syndicat yi ñu tàggat ñu ci wax ñu luy rolu syndicat nu muy demee nu muy doxee dugg ci mouvement de jeunesse yi dugg ci it euh, mouvement des partis politiques comme ni ñu ko waxee mhm. yooyu laa yaakaar ne dafa xaw a manqué ci jamono yii dafa xaw a mel ni mi ñi dañuy yeewu rek dugg ci parti politique yi te xamuñu dëgg dëgg dëgg li nga xam mooy cëru parti politique encore nga ko rapidement xam nga bu jëkkoon da ngay daan dugg ci parti politique parce que idéologie bi nga xam ni moo fondé parti bi xam nga ko d'abord parce que loo xamul bu baax nga mën ne nga mën koo sàmm mais loolu dafa amoon solo ci jamono yooyu ci suñu bi lu amoon solo la parce que moo lay won lan la lu mu war a jur loolu nga bëgg ngeen ko am te it li nga xam ni mooy cëru mag ñi bu ñu jëkkee mu yëpp dina la ci tàggat ba nga xam ne am na nooy doxalee mhm. alors dafa mel ni nag léegi comme ñu bari jaaruñ ci yu mel noonu euh, dafa am lu leen di manqué. waaw njiit yi nag loo leen di dénk ñoom njiit yi nga xam ne ñoom yàlla yàlla jël réew yi teg ci seen loxo euh, wantaxawaay lañ war a am euh, tey ci seen digg ak askan wi ak sax ñi nga xam ne ànduñook ñoom. waaw xam nga sànq ma nga lay wax ne la parti politique bu fekkee ne jaar jaar yi ma wax léegi ñëpp jaar ngi ci li nga xam ni mooy lu war a nekk sa taxawaay ak sa jëf ak ni ngay doxale sa bor li nga xam ni yaa ngi koy def pour njëriñu ñëpp njëriñu réew mi donc de doo rek taxal si féetale boor bu fekkee ne danga nga naan da nga jóg ne man parti politique ñi intérêt ñëpp la euh, euh, mooy tax may jóg mm-hmm. donc li ci am solo pour ñun c'est que il faut que ñu jiital l'intérêt général boo li ci des dooru ñëw mm. donc euh, muy ñi yore nguur gi tey muy ñi koy wut ak yépp li ci am solo pour ñun mooy loolu jiital l'intérêt général mm. loolu mooy li nga xam ni quelque que soit foo féete quel soit foo féete yaru intérêt général jox ñëpp cër su la yàlla joxee nguur gi it hmm. nga xam ne joxuñ la ko pour sa bopp nañ la ko jox pour réew mi yëpp hmm. ñëpp ñi nga xam ni ñoo bokk ci réew mi hmm. am ci gis ci seen bopp loolu du bokkul rek bokk naa partie wala mu bokk parti parce que boo wut parti da am na doxalee ak nooy waxee ñi nga xam ni bokkuñu ci parti bi ba bi yàlla jox pouvoir bi nguur gi bien que man terme nguur def ma xaw a diis. Hmm. que <laughs> du diriger un pays du du nekk nguur. nguur waaw nekk mais ci euh, cosaan ci hmm. démb lañ ko terme boobu di naan jox nguur gi. Hmm. wala jël nguur gi wala donc. loolu li am solo moo di donc nga yore pouvoir bi wala nga bañ ko yore am na yoo xam ne ci nga war a mën a sukkandiku. Mhm. pour xam ne lépp looy def dafa war nekk njëriñu ñëpp. Mhm. bokk ak yow ci parti bi pouvoir bi wala nga bañ cee bokk. Mhm. waaw mag mi nga doon tey euh, maam naka la jàngate xew-xew yi amoon Sénégal weeru mars bi ñu génn nga xam ni réew mi jaxasoo woon na lool fitna gi euh, jéggi dayoo fukki bakkan ak ñeent rot ci loola yépp xëy na politique sooke ko yéen ban jàngat surtout yow ban jàngat nga defoon ci ci ginnaaw xew-xew yooyu ci Sénégal nga xam ne yu mel noonu xëy na bu weesoo ay mai 68 ak yooyu bariwul bariwul luñ koy dund. lu lu xaw lu xaw lu mel noonu xawoon na am bu ma la fàttali ne ne mm. en soixante huit mm-hmm. amoon na muy syndicat yi muy étudiants yi ak euh, euh, même les partis politiques ak yooyu mm-hmm. yëngu amoon na lii nga xam ne aussi moo fi amoon ci mois de mars bi ah. mun nañ ko féetale ci d'abord ñi nga xam ni noonu lu ñuy doxalee diggante ñi bokk Sénégal yëpp dafa am lu manqué ci formation yi ak ni ñuy régler problème mu réew mi ba nga xam ni loolu moo jur ñu ma yaakaar li nga xam ni moo xew trois et quatre mars yi ñu génn parce que bëgg-bëgg yi mën-mën yi ak cër bu ñu jox ku nekk ci sa wàll ci réew mi su doxoon ni mu waroon a dox yaakaar naa ne kon xëy na li amoon mois de mars du am parce que euh, maa ngi fàttaliku toujours comme yaa ko junj loolu Senghor ni mu daan doxalee naam daan kii mais daf daan nit ñu tubaab yi tuddee daan xaw anticiper. Hmm. parce que dafa daan waxtaan dafa daan woote daaw xaar ba yëfi ne kutt jon hmm. muy door a réagir. donc lu am solo la loolu yaakaar naa ne ci lii ñu génn loolu dafa xamoon a manqué mm. waxtaan ak ñi nga war a waxtaane balaa mbir di ñëw parce que mbir mi bala muy ñëw mën nañ koo xalaat mm. gis yenn ci yoo xam ni mm. dina la ne ah di nga mën a wax ne ah lii kat bu amul mucc donc yooyu moo yaakaar naa ne lii xewoon mars daal loolu mel noonu ci la bokk moo di manque waxtaan kooku moom yaakaar naa ne lu am solo la. Mhm. parce que nag surtout bu jamono yu méttee ak ni mu mel nii. Mhm. c'est tout à fait normal bu fekkoon ne xëy na jiital nañu waxtaan. Mhm. xëy na duñ ci yàgg ba foofu. justement mooy laaj bu mujj bi pa place opposition euh, lan la war a doon lan la war a doon taxawaayam ci ci réew mu mel ni Sénégal exemple. da d'abord il faut ñu d'accord ci lenn. opposition il faut mu am. waaw. parce que ñëpp mënuñu bokk xalaat def comme ñëpp comme comme dirait di tubaab une pensée unique. Mhm. ñi ku ci nekk ñàkkul am na nooy gisee nooy doxale looloo tax parti politique yi di am. Mhm. parce que bu fekkoon ñëpp duñu juboo ñëpp ànd. Mhm. ñëpp na même pensée. soxlaatul ñuy créer ay parti politique. parti politique c'est pour que ku nekk euh, wax sa. mais nag foog ñu mën la permettre nga mën a ñëw. Mhm. fañ ko war a mën euh, defe mhm. wax sa xalaat. Mhm. yéen journaliste yéen a créé wax sa xalaat. kon ñu ngi lay gërëm bu baax euh, maam Assane Masson Diop euh, amoon mbégte lool dalal la ci démb ak tey ngir waxtaanee waat euh, li xewoon démb jàngat itam tey ak yow ndax li wolof naan mag mag naa ba cim réew fekkee ngeen démb tey itam yàlla bàyyi leen fi ngeen di nu gunge yàlla na ngeen fi gën a yàgg te ànd ak wér lool ñu ngi lay gërëm bu baax Diop di la dig daje beneen yoon incha allah ci réew mi FM. jërëjëf. yàlla fankal leen musiba balaa. amiin amiin Diop lambal ñu ñun ñëpp réew mi. amiin Diop. waak jërëjëf kon ñu gërëm suñu maam Assane mason Diop bu baax a baax bokk ci sage yi parti socialiste yi ñu dem nag déglu kàddu yi kilifa gu mag ba tey ci mbirum Moustapha Lo mi ñu tuumaal euh, ni dafa bëggoon a faat président Senghor fàttali ni moom ba mu taxawee euh, ca kanamu àttekat ba dafa wax ni mësu koo bëgg a faat waaye da ko doon tiital bëgg kaa won ni li muy doon doon kilifa ak li muy aaru aaru euh, taxu kaa xëy na mucc ci yenn yi moo tax ba ni muy faatu wala ba nin koy faat mësuta nangu ni moom rey président Senghor moo ko yëkkati woon waaye am na kàddu yoo xam ni président Senghor jot na ko ci dénk ndem si yàlla euh, Serigne Cheikh euh, Al Maktoum euh, moom mu yëkkati yooyu le kàddu itam ci ab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 kon loolaay kàddu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yi mu yëkkati woon ci mbirum Moustapha Lo ndax ni ko suñu maam Assane Masson Diop waxee xeel yëpp demoon na jamono yooyee ci moom ndax wuute gi doxoon digganteem ak sengoor te itam yooyu jamono mu yoroon ab parti politique kon mbokk li lañ leen indiloon ci seen euh, émission démb ak tey euh, jagleel ko euh, faat yi nga xam ne ñu ngi koy doon jéem a faat président yi ak yi xew tey jëloon lay taay waxtaan wi la xewoon atum 1967 ñeeloon président Senghor waaye njàmbaas ci li xew tey ci Mali di Assimi Goïta mi ñu bëggoon a faat niki noonu Andry Rajoelina njiital Madagascar ak euh, njiital Haïti mi nga xam ne moom euh, daal na ñuy jot a jël euh, bakkanam mu di Jovenel Moïse Fatou Thiam nga moo ne woon ci kaddu gi feggu ak Diawa jàlloo ci jàppandal gi ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ci démb ak tey ñu yendoog jàmm